wéy leen di abonné ci suñu chaîne bi di Fafa TV ngir ngeen mën a jot suñuy video yu bees yi ahsanallahu ilaykum cheikhana mbokk mi nee na dafa dégg ñu ne cheikhul islaam ibn taymiya rahimahullah dafa wax ci mbindam ne ki nga xam ne dafay màggal guddi guddi guddi juddug yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal mën na caa am yool ngir yéeneem ju rafet mu ne wax jooju ndax wér na ci ibn taymiya su dee wér na ibnu taymiya lum ci jublu alhamdulilah xam naa waxtu mawlid moom saa bu ñëwee rek euh, daanaka dana jël lu bare bare bari ci waxtu ànd ak ne euh, ña koy def xëy na jumbul waajal nañ seen bopp ay lay yoo xam ne buñ taxawee fa seen kanam borom dañ ko mën lii moo taxoon nu di ko def dana matulaay ak du ko matulaay loolu seen diggante ak seen borom la ñi nga xam ne defuñu ko it xëy na waajal nañ seen bopp aw lay woo xam ne buñ toogee ci seen kanam boroom buñ ne leen lu tax defu leen ko daañu amu lay man de li ma jàpp maa képp koo xam ne du ko def mooy sunu sunu borom tabaraka wa taala laajee ne waaw yéen lu tax ba nit ña di gàmmo leen su boobaa sunu lay weesuwul rekk ah yow kat yaa yónni woon ab yonent nee wa maa aataakum rasulu fa xuduuh lépp lu mu indi jël leen ko nu xool li mu indi ba mu jeex gisuñu ca loole nga yebaloon ko muy leeral diine ji mu leeral leeral leeral ba dem te néewul jël leen sama bis bi saabu bu dikkee def leen ko gàmmu lii kat mooy sunu lay fa kanam sunu boroom di ñaan borom bi tabaraka wa taala mu jéggal ñëpp loolu yi muy wax ndax ibnu taymiya moo ko wax ak waxu ko ok ibnu taymiya ci téere bi ñuy wax iqtidaau siraati almustaqim am na wax jum fa wax waaye léeg-léeg waxi waroom xam-xam yi dana xóot xóotaay boo xam ne du ñëpp koy jàng daal di koy dégg daf ne màggal juddu boobu yi jël ko mu nekk mawsim amaana lenn ci nit ñi mën nañ koo def am ca yool lu tax mu ne li xusni qasdihi wa taazimihi li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ngir jubluwaayam bu rafet lu rafet lam ci jublu nee na yàlla mën na ko caa fay yàlla mën na ko caa fay waaye ngir tontu loolu li ñuy jëkk wax mooy borom bi tabaraka wa taala dafa digal jullit yi ne leen su ngeen juuyoo ci dara moo xam ci cosaanul diine la bokk wala ci ay banqaasam delloo leen ko ci seen borom delloo leen ko ci alquran ak sunna fa in tanazaatum fi cheyin farudduuhu ila allahi wa rasuli in kuntum tuminuuna billahi wal yawmi al axir dalika xayrun wa axsanu tawila su ngeen xëccoo ci dara delloo leen ko ci téereb yàlla bi ak sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam su fekkee ne da ngeen a gëm yàlla akub yonentam gëm itam alaxira wala su fekkee da ngeen a gëm yàlla gëm alaxira loolu moo gën tey moo gën a baax ci delluwaay kon yàlla diggaluñu foofu ne su ngeen juyoo dellu leen ci wax waxi diw sàngam du waxi ibnu taymiya du waxi boroom xam-xam bu mag du waxi boroom xam-xam bu ndaw alquran ak sunna la wax loolu benn la ñaareel ba mooy waxi boroom xam-xam yi ak lu ñu màgg-màgg ci diine ak lu ñu ragal-ragal yàlla seen wax dañ koy wutal dalil waaye seen wax du doon dalil bàyyil xel wax jooji bu baax boroom xam-xam waxam dañ koy wutal dalil waaye waxam du nekk dalil ki waxam nekk dalil mooy kan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñetteel ba mooy ibnu taymiya ak boroom xam-xam yu mag yi ci des seen gis-gis benn rekk la mooy ne mawlid ci boppam bi daala am na ci ay textes yu bare bare bare bari ci biir téeréem yi yoo xam ne loola la cay wax téeréem boobu yi nga xam ne ci la waxe wax ju lënt tax nit ñi jàpp ne moom dana gàmmu baax na iqtidaa siraat almustaqim lii ma lay bëgg a wax wax na ko fa nee na wa ama itixaadu mawsimin gayri almawasim alsharciya ka bacdi layaali shahri rabiin alawal allati yuqaalu innaha laylatu lmawlid aw baadu layaali rajab aw thamina achara dilhijja aw awalu jumuatin min rajab aw thaminu shawalin alladi yusammihi aljuhalu ciidu alabraar fa innaha min albidaci allati lam yastaxibbaha alsalafu wa lam yafcaluha nee na jëfandikoo genn feet goo xam ne bokkut ak feet yi sharia santaane lu mel ne lenn ci guddi rabiul awal mi weeru gàmmu lu mel ne lenn ci guddi rabiul awal yi nga xam ne dañu naan wuyeey mooy guddi gàmmu ga maanaam mooy guddi juddu bi yonent bi wala lenn ci guddi yi nekk ci weeru rajab wala ci weeru zilhijja weeru tabaski wala ajjuma ji jëkk ci weeru rajab muy ndeyu koor walla juróom-ñetteelu fan ci weeru sawaal muy weeru koriwa mais bis boobu yi nga xam ne ñi xamul dara dañ koy tuddee iidul abraar neena na yooyu yëpp ci biddaa yi lañ bokk yi nga xam ne asalafu saalix soppuñu ko tey defuñu ko kon loolu leer na téere boobu yi muy iqtidaa siraatul mustaqim cheikhul islam ibnu taymiya dafa teg benn régal boo xam ne ku koy wax ku nekk ku gëm régal boobu waxuma la ka ko teg sax de waaye ku ko gëm ku nekk da ngay gëmaale ne diine ji moom mu ne su ca sos dara muy baax nee na man nadaba ila cheyin yataqarabu bihi ila allahi aw awjabahu bi qawlihi bi qawlihi aw ficlihi min gayri an yashraahu allah faqad sharaa min addiini ma lam yadan bihi llah ومن اتبعه في ذلك فقد اتخذه شريكا لله charaa lahu min ad-diini maa lam ya'zan bihi llah nee na képp koo xam ne sopp nga da woote nga ci dara loo xam ne lu ñuy wute tuyaaba la di ko jaamoo yàlla moo xam daa wax ci làmmiñam ne lii daa war walla ci jëfam te fekk loole yàlla ko yonentam santaane wuñ ko nee na kooku sos na ci diini ji loo xam ne amu ci ndigalul yàlla te nee na ku ko topp ci loolu da koo jël mu doon kuy koy bokkaaleel yàlla danga koo def moroomum yàlla mel ne moom day indi diine moom it di chara di teg charia nee na topp nga ko ci loo xam ne lu yàlla yoonalut la règle boobu ku ko teg di ko waxtu di ko dund nga xam ne moo fees dell ci ay téeréem kooku mënoo dem ba mu yàgg nga wëlbati ko di wax ne gàmmu lu dagan la su fekkoon ne dafa dem ba mu yàgg mu walbatiku maanaam waxam jooju mu wax gannaaw bon xamee taxawaayam ci mawlid ba àggal walbatiku xam regalam bi mu teg kon wax jooju mu wax wax ne ka koy def jombul mën na caa am tuyaaba ngir yéene ja jombul mën na caa am tuyaaba ngir yéene ja waxam jooju ñaari déggin rek la am wenn déggin wi mooy këm jublu ci kooku mooy ku xamut kuréer koo xam ne xamul ne lii eh, biddaa la moom daa gis rek nit ñu baax ñee di def mu wala ñoom jàpp ne ñu baax la ñii jëfandikoo rek mu jëfandiku moom itam waaye yor ci yéene joo xam ne yéene ju rafet la borom bi tabaaraka wa taala day fay yéene ki nga xam ne dafa yéene lu baax jëf-jëf joo xam ne moom xamul woon ne jëf ji àndul ak yéene ji borom bi tabaaraka wa taala mën na ko mën na ko fey ci mu ji rafet jooje mu yéene moom moo tax xat la jëfandikoo xat amaana borom bi mën na ko fay ci yeneen jooji loolu nag muy genn anam goog yi day mel ne loolu rek la ci Ibnu Taymiya war a jublu mooy ku xamut moo tax muy wax ñaareel ba mooy su fekkee ne dafa jublu ne ki nga xam ne mu kàllaf la mu am xam-xam xamee sunna ak biddaa kenn forcé wu ko mu tànnal boppam mawlid ne bu fekkee ne def na ko yàlla dana ko ca fay fay ko ci yéene te fekk moom moom xam na ab atte xam na lépp su fekkee ibnu taymiya loolu la jublu de kon daa juum dafa juum rek la daan dal boroom xam-xam yi da koo dal waaye nag lii dañ koy wax rek ci ne ak anam la gu jamtalu waaye ku xam ibnu taymiya ak mbindam ak taxawaayam ci masala moom yi dana la wér cëng ne anam bu njëkk ga googa rek la mën a doon mooy eh, ka ko tax di wax mooy koo xam ne ku xamut la eh, jëf-jëf joo xam ne dëgg la jëf ja du noona waaye yéene ja yéene ju baax la borom bi tabaraka wa taala fay ko yéene ja dafa am fuqaaw li ñu tudde al jihatul munfakka muy yaari mbir yoo xam dañuy jaxasoo waaye lenn bokku ci ak sa morom jëf ja léeg-léeg mën naa xaw juunu waaye yéene ja ko lal ànd ak ne borom daa xamut borom bi mën na ko fay yéene joojee wallahu taala a'lam qul ma inda allahi xayrun min allahi